asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi bàyyi xel seen seen télévision Touba Argentine TV seen mbokk Ibrahima Fall tomb del teewal leen fii Touba Argentine La palaata ci màggalu 18 safar gi euh, tey jii nag yamook téeméer ak benn ci màggalu Touba ñu koy ànd ak xalifa général des Mourides Serigne Sidy Mokhtar ñu ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér ak njabootu maam borom Touba ak yëpp kon bu ko defee rek comme saa su ne jamono ju ne boo leen ñu gisee ak xar kanam yaan ji rek ngeen xam ne am na lu ko waral muy màggal grand màggal de Touba muy màggalu Serigne Bamba gi nga xamante ni képp koo xamante ne màggal nga ko rek jihaad nga aj nga umra am nga yool ba kon nag dañ leen di digtal li nga xamante ni moo fi ruus si waañ wi fii ci Touba Argentine La Plata bu ko defee sama caméraman boo ma toppee rek moomal la li ci léegi kon bu ko defee ñu ngi fekk fii benn jëwriñ ci Baye Fall moo taxaw ci port bi jëwriñ ñu ngi lay ziar waaw ah, ñu ngi lay màggal wér a wér Fall delloo ziar wér ah ñun tey dañoo bëggoon bu ñu amee ndigal jéem a xool lan moo ne ci waañ wi ak nu waañ wi taxawee waaw waañ waaw mën naa ne waaw ah, incha ay mbokki talibé ñoo ko fi nekk si biir ah. di waajal xéewal yi nga xamante si moom la mbokki talibé wax xéewloo si mm-hmm. loolu la nekk nii dem ba léegi nii bu mm-hmm. ko defee dama leen di bàyyi ngeen jàll si biir rek ziar mbokki talibé xool waañ wi yi ni muy dox yooyu barke maam Serafal mais nu ngeen ko yëgee nu ngeen ko dundee mbaa yëg ngeen ko bu baax a baax rek ko yëg bu baax a baax baax barke maam Serafal mais gars yi si biir ñoom it nañ ko rek waaw gars yi kontaan nañ bu baax nañ ah, ko bi daaw rek hmm. yaakaar si biir mbokk ba si biir danañ xam lu bari kon ñu ngi mbëkkante ak jëriñ xam yi comme ni leen ko wax woon si njaal benn rek gis ngeen ko Euh, mboolem xeetu berna yi rek mel na ne waa Touba Argentine La jamono ju ne duñ des benn yoon ginnaaw ngeen fi ne mbokki taalibe yi jamono ju ne lañ koy mobiliser woo mboolem góor yàlla yi ak soxna yi nga xamante ni ñoo ŋànk daari gis bu xulub jamono ju ne lañ koy taxawale muy lu am solo lu rafet comme ni daal la ko sëñ bi bëggee jamono ju ne sëñ bi nee na lu dalee ci ginaar gis ngeen ginaar xar ba ci gëléem lépp lu waay am rek nag moo ko màggal sama bis bi te xam lépp lu ma am ci bis bi laa ko amee kon gis ngeen bala ñoo présenté soxna yi bu ko defee tamit Euh, jëwriñu soxna yaa ngi ni soxna Sofi xam naa moom temps bi mayu ko dara dara dara dara mais dañ koy laaj donte benn benn question rek mu jëm ñu tontu soxna Sofi ñu ngi lay nuyu di la ziar lay fay bu baax a baax di leen ziar yéen ñëpp waa daara ji di wax ni macha allah màggal gi ah, ñu ngi sant yàlla sant yoon bi sant Serigne Touba mi nga xam ni mooy suñu yaakaar tey ëllëg ah, di sant suñu kilifa diine suñu kilifa aada yëpp dina xamal ni dëgg yàlla macha allah namuñu daray Sénégal lépp mi ngi fii liggéey Serigne Touba rek nekk bay Fall maam Diarra tamit waaw waaw jàmm sox Fall soxna Diarra ñu ngi fii ci La Plata. waaw soxna Sophie maanaam bernay ni mu yaatoo nii ak waañ wi euh, naka ngeen ko mën a organiser daal ak maanaam ni xéwal gi yaatoo nii ak maanaam ni bernay yi bëree macha allah. waaw bernay yi moom xam nga jigéen rek moom day ay. ay bagages sama xam naa ay ja ay taalibe bi maam jaara mm-hmm. macha allah lépp mi ngi fi ndax ay ginaar a ngi fi. Mm-hmm. xara ngi fi. Mm-hmm. a ngi fi. ren sax yaakaar naa ne rax nañ ci ay gileem. macha allah macha allah ak ay pitax. waaw ndax ku ne xam na ne bernde moom. murit moom lépp euh, berndeem la. yaakaar naa te bi ñu xëyee sax suba toog na ay laaxu soo def na ay tuuti laaxu bisaab waaw ndax waa kër Serigne Touba moom dañu bëgg laaxu bisaab waaw dañu bëgg laaxu bisaab waaw dogg nañu sax ay laaxu bisaab macha allah Ah, daal affaire daal doy na waar daal neex na daal waaw jàll na waaw macha allah yëg nañ ko bu baax daal yëg nañ ko waaw di sant nag suñu jëwriñu waañ bi nga xamante ne mooy am di moom lañu àndal ci waañ bi waa suñu am di bay faal euh, daara ji dëgg yàlla ñu ngi koy sant di kontaan ci moom ndax nag démb bi ñu demee nduggi ak bërki démb yëpp dara manquul macha allah ak suñu góor yàlla yi nekk fii waaw yàlla na yàlla def taw féex dafa ñu gudd fan ak wér ak yokk ba yëkko ci barke Seydina Mohamed kon xam naa bala ñoo dem ci góor yàlla yi xam nga fu soxna yi te moom tamit day suñu jigéen ne si waañ moom tamit di si jàpp mooy loxo ndijooru soxna Sofi mi doon wax léegi kon soxna Ndumbe doon ta ñaari kàddu nga sànni ko ci maanaam ci taxawaayu waañ wi soxna Ndumbe maa ngi leen nuyu ñëpp di leen jaar di leen màggal ci bis bi leen wax dëgg yàlla màggal gi ba tey moom ñëw moom màggal gi neex na ma soxna sa yëpp soxna sa bu waxee sax maa jëlaat kon sa moom lépp moo war wax na ko ñaan yàlla yàlla na ko fekk ay at yu bare bare bare ñëpp ko kenn bañ a manqué ak ay xéewal yu bare te bu déwénee nag màggal ko instant bi Sénégal bak sëñ Fallou ndax boo màggal bi allahumma barke borom màggal bi jërëjëf kooku mooy soxna Ndoumé maanaam kàddu yi na solo lool macha allah ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax gis ngeen ko gis ngeen ko berna yaa ngi nii gis ngeen ko xar yi a wan ginaar yaa ngi nii boo xoolee sama caméraman boo xoolee fuur yi fi ne fépp fépp fépp fépp daa occupé fépp fépp fépp fi ne amul fenn foo xamante ni maanaam defuñu fa gis nga glace gi mooy li nga xamante ne mooy glacé xar yi boo duggee nii maanaam waañ wi fi ne fépp fépp mbokki taalibe occupé nañ ko gis nga ko nii fépp rek foo xool rek mbokki taalibe fii dañoo def frigo yi def fépp bu amatuñ fenn ñu def ñu làq fi benn bayal bu yaatu boo xamante ni Baay Faal ñoo fi denc waaye kooku mooy sëñam di danañ dikk ak moom xam naa ni gis nga mbokki taalibe li yëpp maanaam ci taaral bis bi parce que Serigne Touba moom ber na la woote kon lii yëpp maanaam ci ay xeetu bernard gis nga xeetu naan yëpp a ngi fi ay coca fanta ananas moo moo dem xeetu ji rek mbeelam yi nga xam ne ñoom mi ngoog jamono mboolem yi nga xamante ne moom la pres personnalité yi dugg ci biti gi gën a seer di ko jënd moom la ko fii kon mel na moom lépp murite na waaye dañ dem te digtalu leen sëñ am di Baye Fall moom mooy jëwrin maanaam noo ko dunde ak noo ko yëgee ginnaaw bi nga nuyoowee bismillah rahmaan rahim lay nuyu sa tur sa sant di siyaare baax a baax di siyaare mboolem taalibe yëpp rek di rafetlu bis bi daal ak ni ci ñi ñu teewee wax dëgg yàlla am na solo lool am na solo lool wax dëgg yàlla parce que li ñuy wax ni barki dem ba léegi gaa yaa ngi ci mbirum waañ wi ak yooyu te wax dëgg yàlla lépp jaar na yoon wax dëgg yàlla am na dal am na taalube waaw di ñaan yàlla suñu borom defal nu xéewali xéewali xéewal maanaam sëñ am ni man ban soppeeku am moo am ci waañ bi entre ren ak daaw yan soppeeku nga ci gis maanaam waaw soppeeku yu bari na wax dëgg yàlla soppeeku fi nekk ni ko wax tey ji fi la soppe nañ lu bari parce que mbirum sëñ Tuubaa moom saa bu ñëwee rek day gën a bees gën a neex gën a xéewale waaw daaw daaw daa mel ay sos laa fi gisoon nag mais ren lan ngeen préparé ci añ waaw daaw ay sos lañ toogal mais ren moom dañoo préparé ay ceeb yu neex daal ànd lépp daal boo bëggee dégg dëgg ak yeneen bagage yoo xam sew la ci day gën de gars yi jot ci quoi waaw murid moom dafa bëri ay secret noonu lay demee waaw yal na yàlla def jaam def xéwal après dee nekkale ci kanam incha allah kon kooku mooy jëriñ waañi chaque jour moom duñ wéet moom chaque Euh, ñu jàllaat ci biir Chalma incha allah rabbi kon mel na ne instant fii moom gis nga Baay Faal góor yàlla yi soxna yaa ngi nii moom fii moom macha allah fii moom tarkalla ah soxna sama soxna moom faaw ma jël ko sama jigéen a ngi nii gis nga kon moom nee na boobu day métti caméra bi lay daw waaye dina wax moom tey ku wax feeñ tey la bisu màggal faaw nga wax. mais noo ko dundee lu waral coono bi wax ñu lu waral coono bi. mais coono bi nag moom coono mbégte wax dëgg yàlla. tey moom bisub sëñ la. dëgg yàlla dara jeexul nag ñoo ngi ci añ bi fi ne macha allah ginaar yaa ngi daw ñoo ngi misu wi wax dëgg yàlla macha allah tubaarfakalla macha allah la di ñaan yàlla teewe ko déwén yi bare bare bare ci barke Seydina Mohamed bi noo ko dundee noo ko yëgee ak màggal gi ak berne yi nii non am mbégte bu rëy rëy rëy mbégte na la fépp wër na ma fépp xanaa gis nga mbégte la feese waa nga loolu macha allah ah macha allah am nga waaye lii dafa neex waaye li may àjjana kon bu ko defee rek xam naa ni fii la ñuy ak sunu caméraman bu ko defee nag damay jëlal sama xar yi ma sama xar yi ma yi ñu lakk fii bi kii kii bu ñu woote woon xare moom du ñibbi ci moom ba a taxawalee Fall a yi Fall a waaw Fall baax la macha allah waaw gis nga dañoo ne ci commencement bi nii sax xam naa li dese ëpp te moo gën a yaatu yaatal ba mu yaatu ay añ lay doon wala ay reer bi nee na daf gis lenn lu jox suñu jigéen xam naa ñu def benn tàggatoo bu ndaw mais duñ dem mukk te jox ñu soxna Maguette moom wax nu mu dundee euh, màggal ak nu mu ko yëgee parce dama cee gis benn secret bu ma gisuloon daaw soxna Maguette mu ngi takk ginaar mel ko jël benn ko ci takk te secret bi gisuma ko woon daaw kon nag affaire mel na ni yokkute am na waaw mais soxna Maguette tey dañoo gis ni da nga am taxawaay bu garaaw a garaaw ci ma ci waañ wi gannaaw boobu dañ lay bàyyi nga nuyoo xam nga joxe li nga xamante ne mooy sa contribution ci màggal gi ba pare nga wax ñu secret bi nu mu demee waa asalaamaaleykum waa Argentine asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di di leen eh, waa gis nga fekke nañ ko daaw fekke ko ren sant yàlla bu baax a baax màggal gi moom macha allah neex na di ñaan yokkute rek bu wér bañ mu tas rek moo tax xam nga ñu koy raxasa ak wëñ yi mais mais takk bi dafa garaaw de ak roof yi comme ni ngeen ko defee nii moom ban ban secret la ci bëgg mu saf la ngeen bëgg a teg ci ay sauce ci ren nag tey nag ay ceeb la ceebu yàpp jaga ngoon gi ay mais pourquoi ngeen préféré woon euh, salade ba saa ngeen préféré ceeb lu waral loolu Ah, ay secret gi ci biir non changement xam nga dafay baax si lépp loo gis waaw ah, wax wax nga gis nga ko moom moom lépp daal macha allah gis nga ko comme ni ko góor yàlla waxee mais Baye Fall moom wax feeñ Baye Fall Baye Fall Baye Fall nga wax Baye Fall Baafal daw nga ma ñetti at mais Baafal tey moom Brésil laa la jëlee gi nga Baafal dafa jafe Baafal la nii <laughs> Baafalu Pikine mais Baafal tey noo ko yëgee ak entre parenthèse nga ko daan dund Brésil mu nekkoon ci beneen état di ci nekkoon ci beneen réew mais tey ji nga nekk fii Touba Argentine La Plata di ko fi dund ak Baafal noo ko yëgee daal Fall ak noo sentir mbir yi di waxaat xaddi mihi xaddi mihi maam Ibrahima Fall lamp rek rek bu dul feccee ko ba mukk comme ni ko maam Cheikh Ibrahima di amaan mbégte lool loolu nag bañ bañ teewee maanaam ci ci ci biir daara ji ànd ak mbokki taalibe ak liggéey bi di ci santaat sëriñ bi bu wér a wér a wér a wér ndax amaana jamono yi moom namuñu Touba dafa mel ni sëriñ bi daf ñoo wammatal Touba ba fii nii fi barki Cheikh Ibrahima Fall waaw moo tax daal Fall fii ci wàññi ko loo fee Baye Fall ji nag ñu ngi nekk ci cin li xam nga mais sama cameraman kay xool li Baye Fall di liggéey fii Fall jamono ji ci cin li nii non Baye yaa génn fu ne Fall fal li daa mel ne dose bi doosu mu am seera fal la fal fal li yaatu na xoolal ma xoolal ma xoolal ma fi ngeen génn rek macha allah mais sama kii sama kii roman man instant yi man xajatuma ci waay parce que li ma gis moom damaa jommi instant yi moom moom damaa jommi moom xaaral ma ñëw daw parce que sinon rek dama koy xéwloo par gars yi am nañu xéwloo waaw kon bu ko defee mbokk taalibe xam naa dañuy ñëw waaw wax sëñ kàpp bu Baye Fall bi Baye Fall mënu ñëw dem te kii ñu xoolal ci nu Baye <laughs> oh. ma ma ma Baye Fall xanaa Baye Fall xanaa da defar ay laxas Sénégal. non bii de moom a xam. macha allah bii de préparé moom yaa ma gën a nga ci def Fall yan xeetu cafka. kii de mooy loolu noonu kii de mooy moom mooy doon na ci def ay tomate affaire yooyu dafa doore quoi. voilà amul tomate mais comme boobu noonu mën a def ni boobu rek. mais Baye Fall fi mu jël garaaw na nee na ruus bee dog tax mu xonk te def ci tamaate def ci dara kon bu ko defee rek euh, yéen ñi nga xamante ni yéen bàyyi xel Magal Touba ko defee rek dañuy dem ci kiis dem ci saal ba nga xamante ne mooy wàccab alxuraan mi li ngeen gis mooy préparation ndax kenn xam ne màggal maanaam cosaan li berne la bu defee rek suñu caméraman dañuy ànd ak moom li nga xamante ne mooy wàccam kaamil li njàngam xasida gi durus yeeg yëpp yéen mboolem saalihaat ak salaatam ala nabi yi nga xamante ne jëpp kon bu ngeen nee kiis rek ci kanam incha rabbi